laan bi kum fitna rayante jàpp pante moo nara am tey Sénégal boo moytuwut ndakaaru njaay te mooy yéen a kaay ñu ko xamal enquête yéen a kaay na ko ndakaaru njaay kay nar naa tàng jir ndax ku jéggi opposition bi fa ñoo bëgg a amal toogaanu ñaxtu ca buntu jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi te préfet bu ndakaaru fa leen a xaayee le quotidien yéen a kaay ne opposition bi ku jëbi nee nañu far force fara force doole mbaam kenn mënut leen a teree doxal kenn munut a tere ba duñu amal toogaanu ñaxtu ba tax turbine yéen a kaay na talaatay ndeer boo moytuut moo nar a am tey ci talaata ji boo moytuut fitna mbir yu garaw nar na faa xam wal fajir yéen a kaay na ah yëfikat ku yeboo jàq si de safara suy tàkk ci kaw daal l'observateur ne ma wax leen ku jegi lan moo tax ñuy amal toogaanu ñaxtu aa yow seetal ne nañ Xalifa Sall ak Karim Wade mi gaañu jaay doole lañ bëgg ñu bàyyi leen ñu bokk ci wata 2019 yi loolu benn la ñaar fichier électoral bi ñu jox leen ko ñett Aly Ngouille moom xaw ma kan waaye du jiite organiser élection yi nañ ko jox ko malu ñeent loi parrainage bi affaire caaxaan-caaxaan na nañ fi dindi maître Oumar Youm directeur cabinet njiit réew mel ni ku leen di tontu ci l'observateur ne yéen waxi daanu ci saret ngeen di wax li xam daal mooy waa yaana yi ay opposant lañu fa ñoo sol mbubb société civile waaye fa ñuy politique lu jëm nag ci wàllu sondage yi Oumar Youm nee na man ay sondage liggéey wàcc ci terrain bi laa gëm te maa ngi ci 24 heures yéen kaay les éco yéen a kaay ñu ko xamal yéen a kaay bi yokk ci na premier adjoint au maire ba nag moo yore waale maire ba délégation spéciale duñ ko fa xamal réew mi yéen a kaay ne nguur gi ñu ngi ngoro lu ëpp juróom fukki conseil xalifa sàll ya neexal leen maanaam daal jënd leen ci gàttal ngir bu ñuy remplacer xalifa sàll ñu falal leen kañ bëgg mu falu source aay yéen a kaay ne Khalifa Sall ginnaaw buñ tekkee ndomba tànk meeram ba xam nga fan la gaa yi jëm ak tànk député bi la diddi te duñ fa yam danañ dem ba Khalifa dootul am sax sañ-sañ jiite parti politique wala ab entreprise Sénégal suqi bam set lañ ko nar a def exclusif yéen a kaay ne Moustapha Niass kay rocci na paakam ba jekkali mottali Khalifa Sall la bëgg a def maanaam dajale député ya ñu tekki ndomba a faagagal Khalifa Ba ma ngay wax ca témoin a kaay li tax su Soham Wardini mooy wutu sax kalifa Sall lu toll benn weer wal fajër yéen a kaay ñu ko xamal li mu ñu xamal moom Sud Quotidien mooy mbirum parrainage bi parti politique yi soobu nañ ci de ayaw seetal ngir ut ay signature ku leen parrainel ndakaaru njaay candidat yëpp a ngi koy xëccoo diiwaanu Mbour Benno Bokk Yaakaar ak réew mi wàcc nañ ca terrain ba di ñàkkante ca diiwaanu Sédhiou Benno Bokk Yaakaar moo fay doxal ku jegi opposition ba ma ngay làmbaatu diiwaanu kaay ne xaw ma ndakaaru benn bokk yaakaar njiit réew Macky xam nga ñaata signature la bëgg ñaar téeméeri junne ak ñeen fukk juróom-ñett yu toftal téeméer juróom fukk pare me Macky ne loolu bëgg am parrainage Dakar nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njiit réew Macky Sall moo bu Chine ñoo yem képp Macky fay jaay doole di wéye la ay loi du samay kàddu nag Omar Fay leeral askan moo ko wax ci kaso ngir am deuxième mandat liñ def Khalifa Sall nee du dëgg du yoon ñuy saytu wàlluk yoon justice àtte ci Sénégal ña amal geraw tribunal yi liggéey ba fañ koy dakkal wal fajër yéen a ñu ko xamal li mu ñu xamal moom libération mooy Ecobank salaire u fonctionnaire yi ba léegi fayagut ko retard bi ni mel nag libération nee na lu garaaw la le soleil yéen moom di ñu xamal na sommet ndaje Afrique ak Chine njiiti réew bu Chine daal juróom benn fukki milliards ci xaalisu dollar moom la ca banlieue bu ndakaaru agresseur yaa ngay jeexal askan wa wal fa jëri yéen a ko xamal bët bu set nga dégg ku rey wala ku ñu ay bandi yor ay ngàndaay loolu fa ñaaw lu ko gën a ñaaw nag ca place bu bese yaawoo ba nekk géejawaay lay enquête yéen a kaay ñu xamal ne place bése daal la fa xam du jàmm agresseur yaa ngi fa xale yu jigéen yi jaay seen bopp musique baa nga tànqal askan wa ba tax ña dëkk cité Djily Mbaye nee nañu sonn nañ imaamu quartier ba nee na am na benn waay boo xam ne fa naanoon ba mandi ñëw saw te seen jumaa ja xam ngeen loolu baaxut la lu baaxut Sénégal mooy saaga wax ju ñaaw fi mu toll ni fa bëri te fañ ko yombal te mooy yéen a kaay ne wax ju ñaaw daal boo ne nu benn ñaar rek nga dégg ko ci a jaaru tedd ki Serigne Touba ak Ndar rakk yam julli woon nag ca bureau gouverneur juróomi fan ci weer septembre 1895 la woon gi nag Serigne Sidi Mokhtar Mbacke almarhum moom lañ ko dara jaale Dakar Times moom di jox xamal na fi nekkoon njiiti bu Burkina Blaise Compaoré ak jabaram ñi ngi Dakar de amal nañ fi tukki nemmeeku fañ koy nëbb nag ndax Blaise Compaoré mandat d'arrêt international ñi koy wër ci àdduna bi ngir jàpp ko lu ko njiital Adja Ndiouck ñaax askan wa lañ doon amal laneen lu am Sénégal te rafetu dara mooy yenn façon nga nele ñu jógee màkka ayaw seetal zoom yéen a kaay moo ñu xamal ne nga nele VIP moo xaw léegi ngay dem màkka ñëw bu dee borom xaalis nga dajale woykat yi waaraatekat yi yu siiw yi ci télévision yi ñu toog ndaw tal ya commencé li gën a ndaw ñaari junne la génne ay enveloppe ci ndaw tal ay million mel ni ku nekk ci ciit wala jàkkaarloo yéen a kaay na aju màkk nim sellee ku ca dem wax dëgg yàlla puukare yàq fo ma war nga ko moytu fo